bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokki taalibe yi yéen mbokki julli yi yëpp maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ muhammadunil muntaqaa ayadahu llah wa nasar wa xafidahu wa satar wa rahima salafahu wa xafar wa liman aamana wa aslama wa lam yastakbir di leen jottali ci ndigalam kàddu yi di kàddu yi ndokkeel ak sant ak ñaan ak soññee mi ngi ndokkeel al ummatal islaamiya gépp di ñaanal ñi ci ne ci aw tiis yàlla teggi leen ko ak fu ñu man di ne rawatina nag su bokk ya ca Falastiin ci weeru ngëneel bii di weeru mbaax di weeru ragal yàlla di weeru yërma yërmananteeg dimbalante mu tolloog ama alfin wa arbain wa wa arbain atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom gannaaw gàddaay gi ci gàttal fourteen forty five muy weer woo xam ne bokk na ci njariñi war ko musal la ci ñaari gàcce yi ak ñaari sawara yi gàcce gu àddinaak gu àllaaxira ak sawara wu àddinaak wu àllaaxira ni ko sëriñ gi waxe nafu siyaami shahri fi daarayni yakfikumul aarayni wan naarayni kon maa ngi ndokkeel ñépp ci turu sëriñ bi ci teru teg weer wi di ko jottulil cant yi mbokki taalibe yi rawatina kilifa yi ci pastéef yu dëggu yi ak taxawaay yu rafet yi di ñaanal ñépp yokk ak mucc ak ngërëm di soññee it ngir ñu gën a bàyyi xel weer wii yeesal ci pastéef yi yokk ci jëf yu baax yi waxuma wàññi ci waaye teet ci jëfi safaan yi di fàttali li sëriñ bi sëriñ bu mag bi waxoon ne koor nekkul bàyyi lekk ak naan rekk cër yépp koy maase def fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi te loolu dafa mel ne daa nettali rekk hadiis bay wax ne ku bàyyiwul wax waxi neen ak di ko jëf yàlla aajuwowul mu bàyyi lekkam ak naanam ku dul moom it yàlla aajuwowul daraam ndax lu waay yor rek moo ko ko jox lim digle ki ko def lay jariñ ki ko deful mu wàññi ko lim tere ki ko bàyyi mooy mucc ki ko bàyyiwul lor moom daa sañe digle di digle rek sañe tere di tere topp ko jëriñu ko dara mooy ko wàññiwu ko dara aajoowul ak lekkam ak naanam mooy rekk mook ku wóorul la yamale du ko ci bindal tiyaaba man lam yadaa qawla zuuri wal amala bih fa laysa lillahi xaajatun an yadaa taamahu wa sharaaba julli yeeg asaka yeeg aj yeeg yépp noonu kem ni mu ko waxee ci tabaski yi ñi def lan yanaalu allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum lu waay di def ci yii yépp na ak ragal rekk rek nu bañee fàtte it ne koor am na ñaari farata jenn ji mooy yéene woor ko ci guddi gu jëkk gi bala moo jeex te mooy fajar jot wenn yoon weer wi yépp nga boolee ndoo yéene lépp benn yoon dana doy ak doonte ne sopp nañu di ko yeesal guddi gune gu ñaareel gi ba ba muy jeex ñaareelu farata ji mooy ki woor tëye boppam ci lépp lu yàq koor naan lekk jaxasoo ak yuñ mën a yéegal ci yooyu li tàmbalee fajar xarxaaju fajar ba jot bi lan moo di so nag wuute am na ci am na ñu ne mooy suquutu xursi shamsi taxtal ufuq maanaam nga nekk foo xam ne dara làqu la janoog jant bi di ko gis fa sa bët yam mu mel ne luy dugg ci biir suuf ba jeex tàkk wala bu géej mu mel ne luy dugg ci biir géej gi ñu ne bu loolu amee fam amee rek fa la bëccëg jeexe laylu ñëw na te alxuraan summa atimu siyaama ila layli la wax fidaay man mooy tolloog waxtu wi waa dëkk bi di dolli ñeenti minit soog a dog am ñu jàpp ne loolu rek doyul laylu ñëw xañ na jege naa ñëw rekk waaye ñëwagul ndax mooy safaanu bëccëg te bëccëg mooy diirub jant bi na fi akuk leeram njëlbeen gi ak leeram di ko fi jiitu mujj ak leeram di ko fi mujj kon jëmm ji dem te leer gi wàññikuwul ba jeex tàkk du tax ñu mën a wax ne guddi ñëw na faaw la lëndëm am lu néew néew gannaaw suquutul xurus gannaaw bu jant bi duggee ci suuf si walla ci ndox mi lii wax kukk nu soog di mën a wax ne guddi agsi na am na ñu gisee noonu mu kallaf nag sañ naa seet li ko doy dalxelam ci diineem mu ne ca loolu ku ne sañ na ko koor am na it ñetti sunna dog gannaaw boo xamee ne jant bi sona yaa xam nag yow loo jàppee jant bi so ak yeex a xëdd tem jëkk fajar ak bàyyi lu amul njariñ ci wax ak ci jëf lu mu ci man di doon doon nekk rek luy indi tuyaaba nekki jàng alxuraan taxaw guddi addis ba nee na ku ko def ngir rekk gëm njéggal gi ci digge jàpp ne yàlla dana ko ko ci defal te bañ caa jublu ñu gis ko ci loolu bañ caa jublu ñu dégg ko ci loolu des na ko jéggal la jiitu ci bàkkaar bàkkaar yu ndaw yi nag moo tax ñuy wax bakkaar yu mag yi moom tuub rekk moo koy far tuub day ànd ak yéena bañ caa dellu waaye tuubandi ba koor gi jàll rekk du tuub du tax a far bakkaar bu mag ab doonte ne wormaal koor gi la te loolu lu baax la yàlla na yàlla dimbale ban màng ko cenam gën a mate gën nee rafete ten fekk ko at yu bari tem dolli jàmm ak ndimbal suñ kilifa gi sëñ Muntaxa gën ko fee yàggal te mottali mbooleem sumb yi maa ngi yalwaa nit ci biir ci béréb bu tedd bii bu yaakaaru bii ku fi ne ak bu sama kàddu egg ci moom ku manti doon muy ñaanal suñ mbokki jullit ya ca Palestine ak doonte ne lu war la ndax lu leen jullit mën a dimbalee rek war na koo def te ñaan benn jullit télewu ko yàlla xam nag ña ca yelloo nangu la ñam cay nangul am ñam dul nangul te yéex a gis natiijam ñaan li juddoo ci ñaan tekkiwul ne daa amul njariñ walla yàlla da nangu lii laa ne war naa ko ci dolli di jéggalu njuum te lu ci man di am waqad jàll man laa yashu duma fàttee ndokkeel nag sama mbokki daara yépp ci bisub sëriñ bu bii mu jëm di ko ci fàttaliku ak ñaanal yal na ko yàlla yàlla yal ko yàlla fayal ñépp mais naa wax ne bu amoon ñenn ñoo xam ne seeni jëf ak seenu mbaax may na leen bu jar kenn di leen ñaanal danaa mën a wax ne ca la bokk ndax léppam mi ngi ci diggante koor ak alxuraan mi ngi gane àddina ci koor gannaaw ba alxuraan wàccee ci koor dundam gépp mu jeexal ko ci jàng alxuraan ak jàngale ko génn àddina ci koor yal na ko yàlla gërëm te fayal ko ñi jaare ci loxoom ñépp ngeen ji pay tem sàmmal nu ak njabootam defal nu ci lam ca bëggoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa